Diom moo leen ko yónnee ngir ñu ñëw teewe ko coalition Yewwi Askan Wi nag daal di boobu la invitation ne du teew ca fête de l'indépendance ba li ko waral nag bari na benn bi mooy doxalin bu njiitu réew bu Sénégal Macky Sall bi nga xam ne amul benn jéego boo xam ne def na ko jamono jii ngir seral dëkk bi nga xam ne tàng na jër rawatina nag langue politique yi nga xam ne yëngatu na ak dundunu askan wi nga xam ne kenn xamul lu mu doon bés bi yàlla sàkk loxo dar gémmiñ ndax jaaxle goo xam ne askanu Sénégal ci ñu nekk waa coalition Yewwi Askan Wi nag def ko proxndoll ngir rek sargal armée nationale bi nga xam ne jàpp na ne ñoom bu ñu ñàkkoon ci fête nationale bile du saf xorom félicité nañu itam askanu Sénégal bi nga xam ne daanaka boobook léegi ku ne ak fa nga ne yaa ngi def sa kem kàttan ngir jàmm am ci réewum Sénégal mu nekk réewum démocratie waaye itam réew moo xam ne màgg na lool ci dimbalante ci diggante askan wi. AGT News. njiit réew bu Sénégal Macky Sall fas yéene nag delloo buum ca mbooy mbooy ga ni mu koy defee ñetti fan ci weeru avril at bu ne fas yéene jël ab discours jagleel ko askanu Sénégal discours bi nag ren liñ ciy séntu bari na muy tension bi nga xam ne am na ci wàllum politique fii ci réewum Sénégal crise économique ak yeneen poñ yoo xam ne askan bi ñu ngi koy jàmbat mu mel ni tey fii ci Sénégal ñu bari li ñuy xaar ci njiit réew bu Sénégal Macky Sall mooy mu wax ci mbirum ñetteelug mandat bi ndax léegi Macky Sall dafay junj askan wi ndax dina dem am du dem tey nag askan wi lu ñu bëgg mooy mu firi leen ndax day bokk am déet ci élection présidentielle bu 2024 askan wi ne doyal nañu sëkk ci cax yi nga xam ne moom la Macky Sall ak i nitam dëkkee bés bi yàlla sàkk ca beneen wàll ga am na ñoo xam ne ci askanu Sénégal nag xaaruñu dara ci njiitu réew bu Sénégal soxal mbirum politique la ñu bëgg nag mooy mu taxawu ndaw yi nga xam ne bés bi yàlla sàkk ñu ngi talaanu fu ne ñu di fa tàmbambalu ngir am lu ñu jàpp ñi ne dëkk bi dafa dëgër moo tax Macky Sall dafa war a gestu ndaw yi nga xam ne dañu toll ci liggéey te amuñu dara lu ñu jàpp ressources naturelles yi nekk ci réewum Sénégal wax na ci defab jéego bu rëy rëy bu defee askanu Sénégal ci seen bopp mën a gis wala bokk am njeextal ci li nga xam ne suñuy ressources naturelles la ñeneen la ñu bëgg nag mooy dal dal goo xam ne ku ne dina ci gis boppam ndax nag nee ñu sonn nañu bu baax a baax ci askanu Sénégal saa bu fitna amee rek kenn ci suñuy doom ñàkk ci seen bakken mu mel ni boolu jàmbat bi bari na lool li ñuy xaar ci njiitu réew Sénégal ñetti fan ci weeru avril di bés bi nga xam ne moo jiitu bés bi ñu moomee sunu bopp. AGT News. jeexalee nag ak njiital réew mi sa Seck bi nga xam ne amal na ab ndaje ci njeextalu ay bés bile foofee sax daanaka dafa gàccal kii di ba Diattara ak Ali Saleh ci kanamu responsable yu bari bu ñu sukkandikoo ci Les Échos Idrissa Seck du samay kaddu daal di jagleel ab laaj ki nga xam ne moom mooy ba jatara ne waxoon na ko ni mu jël juróom fukki ndaw ngir ñu liggéey ca ministère bi nga xam ne moom lañ ko dénk muy wàllum sport waaye dafa mel ni kii di Yankhoba Diattara nopp bu tëx bi la ko jox ndax càkkutéef antuwul sa sekk mer ba futtu daal di dal ca kawam ca boobu leen dajee bi wax ji laata daanu Alé Salé di ko dog ngir indi ay leexal Idrissa sa ne ko yow lu la ci ba lay waxal kon yow amoo loo ci war a wax li nag tax nag ci ab diir ndaje ba ne tekk ku ne di xool sa moroom ciy bët ndax kenn xamul dëgg-dëgg lan moo waxal Idrissa Seck amal bile doxalin na ñu baax yi ca ndaje ba jàpp ne yoon wi nga xam ne Idrissa Seck da ko fas yéenee xàll jëm ci élection présidentielle bu 2024 moo waxal doxal yi la coppite ndax ci fàttali muy ba Diattara wala alisale ñoom ñaax ñëpp ay jëwriñ nañu ci gouvernement bu Sénégal AGT